Office.coop ñëpp jàpp ni site internet boobu liggéey bu mucc ayib lay liggéey ci mim di rafetlu initiative bi en ndaw yu dëkk si Tëngéej di yeewu fii si benn mouvement bu ñuy wax Tëngéej bu bees bu doon ay mouvement yu ndaw yi nànk euh, tey nag mi lancé woon benn appel mu am solo tuddee ko un Rufisquois un masque donc ñu oo na képp koo xamante doomu Tëngéej la nga fexe daal accompagner initiative boobu noonu.

portée am solo bu nek tam ci walum santé ci walum social walum solidarité ak wàllum économie bo jëlee rek ci walum social je pense que ni day doon li nga xamante day permettre tay population yi mën a bénéficier si masque yi te doo fay dara kon je pense loolu social la amna aussi élan de solidarité ndaxte aussi ko xamante da ngay sa alal def ko ci pandémie bi je pense que ni am nga ben esprit de générosité boo xamante euh wane nga ko loolu lañ koy rafetlu bu baax di ko remercier du point na ni tey port de masque bi dafa doon loo xamante ne euh, benn mesure de protection la par rapport aux populations. mais am na ñoo xam ne koo bañ a takk yéen amul ko ko bëggul takk rek dafa fekk ne yow xamoo lan mooy njëriñu masque ñu nekk si loolu nag dañ ciy jëm a taxaw rek sensibiliser encore population yi day ñu ñaax à ce que ñu déglu autorité sanitaire yi nga xamante ne ñu ngi wax population yi tey ñu takk masque d'autant plus que am na arrêté boo xam ne génn na

xam na ne tailleur amul lu dul korité ak tabaski ak mariage mais tey boo gisee mesures yi nga xamante moo dikkee si pandémie bi dafa am ay euh, tere yu mel ni ay tere ay daje ak yooyu ba nga xamante tey amatul benn mariage boo xam ne mën def si dans les normes tey nag loolu moo tax nag ñoom ñu am problème pour seen activité dox kon tey lii nag boo ko defee nga jël jumtuwaay bu toll nii

emploi euh, formel mais dafa des ñi nga xamante ne moom mooy les artisans les artisans pour man dañu bëgg war nañu mën a xool naka lañu def pour jàppale leen ku leen protéger ba nga xamante ne tey dina mën a am judduwaay yoo xamante ne dina permettre parce que mën a survivre si crise bi nga xamante ne moo ci nekk di sonal askan bi waaw le ministre d'État Ismaïla Madior Fall def naa préoccupé qui ci li Sénégal parce qu'il est au cœur quand même du, du dispositif étatique et euh, chaque fois man lu mu doon waxtaan ak moom daf ma naan moom il vaut mieux ñu loo de ne lii ne dana aar askan bi nous un et et euh, d'un masque c'est bien importer des masques c'est bien mais je pense que euh, euh, de la même façon que médecin quand même expertise expertise locale et notamment l'artisanat il y a des marchés pour nous mener

yaakaar naa ne euh, liggéey bi rafet na liggéey bi c'est euh, réutilisable maanaam mën nañ ko jëfandikoo ko mën nañ ko fóot mën nañ ci def tuuti euh, détergent mais ma rappeler rek population yi tamit masque kenn du ko appelé dama koy ñaan ngir yàlla fàtte woon naa ko kenn du ko appelé abal ma ma takk ay comme ni ñuy abalantee njàmpe comme ni ñuy abalantee ay saabo yooyu non njàmpe yi kenn du ko abalantee

nañu respecté takk masque yi di nga même man sax man tàmmaguma ko damay nek di laalaka laalaat rek bo maa ngi jéem mais c'est difficile mais euh, voilà c'est pas recommandé du tout et euh, je suis en film en train d'être filmé man may téye di laalaka laalaat mais ngir yalla euh, nañu nañu sol masque yi quoi parce que lolu mo moo ñuy jàppale loolu moom moo ñuy dimbali